Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer liman sasal yamma

أحسن خلقه مرتان تهلكوني أبدا لهدلكم بل ارحموني أبدا بفلكم لا تعجبوني أنكم لسلبي وقد رأى وريني قلبي عديت عبدا خرج هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يعتدي من يعتدي jërëjëf sëñ Ibrahima Diaw ñu doon jàng xasida yi kon mbokk yi asalaamaaleykum noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam santam bu ñu gisee jotaay bi nag li ko waral mooy bis bi nga xam ni njabootu maam Sayar Sylla dañ koo daje di ko màggal sunu wajuroo sunu maam ju baax ja suñu Sayar Sylla fii ñu toog tey nag muy néeg bii fi la ko sëñ Saliou moom sëñ Tuubaa daan fekk mu ko daan tëralal bu sëñ bi masaa jógee mewndu day ñëw ci maam sayar mu tëralal ko mu jàll ci yeneen yeneen yi ñeneen fii mi dem jël fa lam bu dëppaatee jaaraat fi ne bii nag tey fi la ko daan fekk ñu toog nag ak xalifaam sëñ sayar silla moom sëñ Ibra moom moom sëñ Ibra silla mi nga xam ni mooy doomi maam sayar yàlla na fi yàgg lool téwér mu ànd ak i rakkam ñuy màggal bis bi di ko màggalal maam sayar lépp luñ fi jàng ci alxuraan ak xasida wala ñu def ko sikru la wala salaatu ala yàlla na ko yàlla nangu def ko ay ngeen ngëneen ak jàmm ci réew mi waaye nag ñu toogandoog seen mbokk muy waa kër maam Omar Fati Xari na xam ne moom lañ ci ci tey sëñ Seer Faati Xëri nag ku ko tudd da nga ma si Faati Xëri Seer Faati Xëri Omar Faati Xëri ak ma Gumba Faati Xëri seenam jigéen ñoom ñu bokk ndey ak baay sëñ Tuuba leen amul binta jaan seen ah, nga xam ne ñoo jóge ñu ngi nii toog sëñ Mbàkke Sylla jiite ko ak ñi mbokkal soxna Coro Sylla ak soxna astu Gawane ak euh, ñii àndal ñëpp bu ñu joxee sëñ Mbàkke dana ko gën a leeral bu ko defee nag bala ñuy sori dañuy jox sëñ Mbàkke rek mu leeral loolu bu del bu ñu del see nag ñu doog a gën wax ci diggante maam Sayar ak sëñ Omar ak ñi xam ne ñoom lu bokkal sëñ Cumbuleen sëñ Ibra Njaay ne ma nee teew doomi soxna Faat si la moom sëñ Omar Faat Sëriñ kon sëñ Mbàkke bisimilah. auzu billaahi min sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala ixwatal imaani wal wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di jiital bi nga xam ni moo fi toog toogaayu Serigne Sayar bi nga xam ne moo liy màggal tey di sunu maam noo ngi jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom mu tegal na ko ci loxoom mboolem njaboot gin bokkal sëñ Saér yëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw bisub tey bii nag doonu ci am mbégte ñun waa kër sëriñ Omar Fati Xari bu ne njabootu Serigne Omar Fati Xari dañ ciy dugalaale njabootu sëriñ Mor Anta Sarr mi jur Serigne Alhaji Silla jur sunu waajur wi Serigne Moussa Pala ak njabootu ko maam. Euh, soxna Fat Silla mi nga xam ne doomam a ngi teew tey ci jataay bi ñu koy wax soxna As Diop euh, dugalaalee yi mboolem ñëpp rek di wax ne bis bii kat dañu cee am mbégte goo xam ne foo ko takk rek weesu na ko ndaxte bi nu ko yëgee euh, nu wax ne kat sëñ Omar lañ ko tuddee mel na ne sotti ceeg def si la di ci profité waale itam di nuyu sunu wajur wale toog di sëriñ Lamine Ndiaye sëriñ Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne njabootuk soxna Faty Sylla la moom sëriñ Omar Faty Khary yi nga xam ne sunu bàjjan la sunu maama sunu lépp euh, kon jataay bi tey daanaka ñëw gi daanaka wax sax noon na fee bañ a am ndaxte mbir mi moom heure bi waroon nañu fee fekk nu waroon a ñëw teew ci liggéey bi ànd ko njaboot gi yëpp kon mu mel ne njaboot gi fi teew tey jii mën naa ne su ma leen dee lim dama koy tàmbalee ci soxna Astou Sylla mi nga xam ne moo fi mag ci jigéen ñi moom itam teew na ci jataay bi ak euh, soxna Coro Silla euh, moom itam di sunu mag teew na ci jataay bi ànd ak kilifaam gi nga xam ne moom soxna Astou Sidi Mokhtar xumma mi nga xam ne moom moo ko yor nga xam ne xam naa sax moom dinañ ko jox ay kàddu mu sof ci li nga xam ne mooy sabab jataay bi euh, teewaayu Serigne Omar Silla itam di doomi Serigne Taale Silla mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Moussa Pala Serigne Moussa Pala ak ay rakkam yëpp ku ci mel ne sa Baye Tafa Silla moom itam ñëw na ak euh, Serigne Mbacke Silla mi nga xam ne doomi sëñ Taali Silla la ak soxna Ndey Faatu Silla mi nga xam ne doomi sëñ Taali Silla moom itam teew na ak sëñ Axma Silla mi nga xam ne sunu rakk la doomi sëñ Moussa Paala la ak euh, Serigne Aliou mi nga xam ne doomi Serigne Alhaji Silla la moom itam teew na ci jataay bi ak euh, soxna maam Ami Mbacke soxna maam maam Awa Mbacke mi nga xam ne doomi sëñ Amdi Mbacke la mi nga xam ne njaarim la nekk di sunu mbokk di sunu lépp di doomi bàjjen asumbeen si la kon mën naa ne jataay bi jataayama waaye mën naa ne daal mboolem ñi nga xam ne noo bokk ci njabootuk ak njabootuk soxna As Diop tudd naa ko léegi wax naa ne moom itam teew na di doom ci soxna Fat Sile mi nga xam ne doomi sëriñ moor Anta Sarr la kon mu mel ne daal jataay bi dafa nekk jataay bu bu soxna maam xari daaru itam teew na moom itam mu ngi ci jataay bi di wax ne wax dëgg yàlla jataay bi moom sedd na xool dal na xel waaye di jël sunub addiye ak sunub nuyoo di ko teg ci loxob Serigne Mbacke Sylla mi nga xam ne moom yàlla def na ne mu tegal nu ko ci loxob sunu waajur wu tedd bi di sëñ Sayar di wax ne nag mboolem njabootu sëñ Mor saar gi li nga xam ne moom la nu addiyeele doon na loo xam ne lu nu lu nu lu nu xeeb la ndax bis bi day boo xam ne ni yaakaar naa ne yéen ji ci ñëpp am ragal bu ñu fi yàlla bàyyee bu déwénee yaakaar naa kenn duñu fi jiitu te lépp loo xamante nii rek war nañu ca kenn du duñu ci jiitu te daanu ko def ba mat sëkk di wax ne ñun sunu xol dafa sedd sunu xel dal na kàddu gi nuy wax itam ni ngi koy waxaaleel mboolem ñi nga xam ne noo fi teew ñëpp ak ñu fi teewul kon wasalaamaaleykum bi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom Tuubaa barkeb Touba ak borom asalaama asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar baax ñu jiite ci nuyoo bi sant yàlla baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat sëriñ bi di ñaanal suñ mun Muntaxa suñ boroom yàggal ko fi te yàlla wéral ko ba yéene ji mu am ci liggéey suñ Touba lépp man ko matale waaye di nuyu baax suñ maseer mi nga xam ni moom lañ fekk si ci barab bi ak gi fi nekk. muy sëñ Mbàkke ak sëñ Jili ak mboolem njabootu sëñ Asaar gépp ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen nuyu ci turu kilifa gi nu yónni muy sëñ Taala mi nga xam ni moo nu yónni te sëñ Mbàkke mi wax ko léegi ak délégation bi nga xam moom la àndal xam naa sëñ Fallou ñi nga am mbégte bu baax ci jataay bi ñaan suñu borom nangul nu ko ta yàlla fulal nu ko ndax jataay bi moom day jataay daa bokk ci jataay yi nga xam ne yenn jataay yu ko solo daa amut ndax fàttali ko mag ñi ak dundal la mag ñi nekkoon. dara de ko ëpp solo te jataay bii daa bokk ci jataay yooyu te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni fu ni fàttalikoo ni ñu baax ñi yërmande yàlla dafay wàcc wa inda sikri saalihina tansilu rahma kon nag bu ni fàttaliku sëñ Maseer di fàttaliku sëñ Omar ak mboolem seeni rakk seeni mag ci bis bu mel nii di jàng alxuraan di jàng xasiida loolu du ko gën a nekk taw feex amut waaye cër bi nga xam ne nag moom nañ ci cëralewaat njabootuk sëñ Omar nag day cër bu mag a mag ndax feddali kóllëre la waaye ab soññe la waaye ak fàttale la ndax bés bu mel nii moom képp koo xam ne tudd nañ la ca rek donte bés bi bésama waaye ñu tudd ko ci cëral ko cër bu mag bi loolu kawe na ci noonu lool moo tax nii ñu dikkee amoon nañ yéene sax duñ bàyyi kenn Touba góor ñaa jigéen ña mag ña ak ndaw ña doon fa bàyyi kenn ñëppay ñëw waaye ñii teew rek ñoo teewaale ñi nga xam ne amoon nañ yéene teew li nga xam moom lañ teewal ci at ya lus xeeb la ndax xam na ne bés ak liñ andi moom néew na lool ci bis bi waaye nag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni innamal ahmaalu binniyaati wa innamaa li kulli imrin maa nawaa yéene moo ëpp pay waaye li nga xam ne daal jëf nañ ko da nga xam ne liñ yéene moo kopp tey li nekk sun xol ci ak sedd ak mbégte mi nga xam ne am nañ ko maanaam kawe na sun jott lool euh, di ñaan sun borom it lépp luñ fi jàng ci alxuraan wala xasiida wala salaatu ala wala istixfaar yàlla nag sun borom nangu ci barkeb seexul xadim ndax Serigne Touba day moo wax ni isid doxaaw yan fahul mayta fil xubóor wa yan fahul aya wa yujibul ujóor nee na ñaanaan ñi nga xam ne dañ fee bàyyi ko dana leen jural ab yool waaye nun ñi nga xam ne ñoo nekk adduna di leen fàttaliku it dana nu jural tiyaaba te ñoom ñi nga xam ne ñooy sëñ Massaer moom fi nekkoon te jóge fi xam ni dundam gépp ci diggante jaamu yàlla ak liggéey ak jàng ak jàngale la ko defoon xam ni kenn nekkutoon ci lu gën a kawe lam nekkoon ndax lu waay mën a nekk ci adduna jàng alxuraan ak jàngale alxuraan moo ko gën ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni xayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu te mboolem njaboot googu gépp ci diggante jàng alqur'an ak jàng maa ngi gis fii taalub jàng lu ma lu ma gëj a gis loo xam ne ay at a yoo xam ne maanaam teguma ko bët muy taalub jàng lu mel ni ab doom doom boo xam ni e, ci jàng alqur'an la bàyyi ko muy jàng marax ak jàng fajar noonu matt mi daan taxani ak yu mel noonu taalu jàng mag ay bant lañ ko wërale woon nga xam ni doom bi daawut daawut génn biir bant yi maanaam bi ma ñëwee fii ne ma gis ko fi loolu moom mu fàttali ma lu bëree bëri kon loolu day tegtale ñoom lan waroon a nekk rek la nekk kon nag fàttaliku leen di ñaanal lu am solo la te lool ñu doon nekk rek la muy baax baax wax dëgg yàlla am nañ yéen a dellusiwaat adduna ngir sàkkuwaat aw yiw ndax sunu borom wax na ko ci alxuraan saxal na ko sëñ Tuubaa it bind na ko wax na ko hatta isa jaa ahadu mawtu xaala rabbi irji'uuni la'allii a'malu saalihan fiimaa taraktu kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzaxun ilaa yawmi yub'asuun sëñ Tuubaa nee na mboolem wàcc ab liggéey ñëpp kenn ku nekk mi ngi sàkku ci yàlla dellusiwaat adduna te la tax mu bëgg a dellusiwaat adduna mooy sàkkuwaat aw yiw sëñ Tuubaa bind na wax ne wa arxabul asiyaay lil amwaati raddun ila dunya mahal xayaati walaw suwaay xatan faqat di xamaloo saali xatan tan fa in xafaloo sëñ Tuubaa nee na koo fëggoon barabam ni ko loo gën a bëgg sëñ Tuubaa nee na waa barsàq gépp ñoo bokk yitte mooy dellusiwaat adduna képp leen bëgg ngir sàkkuwaat aw yiw ñu wax ne nit de buy dund euh, ndax boo gisee sëñ Tuubaa doon insisté di ñaan ay doom yu baax ak ay sët yu baax ngir ñu mën a wéyal ndono lislaam yi moo taxoon muy ñaan naan waxam le naa suriyatan tuddiimu alhamala zalihan yaa xadiimu suriyatan tayyibatan tujaddidu nax jënam nax jënam bi ma safa taj taxidu kon nag sëñ ma sayer yaa ak say rakk ak ñi ñëpp da ngeen a tàbbi ci ñaanu sëñ Tuubaa googu ndax ñoom moom mën a latun seen bopp dara tey liñ leen deseel rek mooy deen fàttiku deen ñaanal bi ci doolu mooy njaboot gi fi ne ñu jokk kóllëre ca ñoom te lii jokk kóllëre la ndax ñoom wax dëgg yàlla rafetal nañ seen diggante li leen waroon seen diggante lépp def nañ ko ndax kun ci war a tudde doom tudde nan la doom képp kun ci war a bàyyile doom bàyyile nan la doom képp koo xam ne daana war nanoo ñëw ci yow daana ñëw ci yow kun musal euh, kun musa soxla daana ñëw ci yow di laaj seen xalaat nga xam ne daal rafetal nañ ne leen ko suñu borom digle digal woon ñoom mattale woon inamal moom moomi noonu exwa fa asliho bay na axwaykum kon nag mbir mi bu demee ba agsi ci noonu it wax dëgg yàlla yéen a ngi rafetalaat bi ndax du li di wax sax loolu wax ju xaw a yàqu la muy mu jëpp sama réer ndax diirub àddina jeexagul moom kenn mu jéegul yëf yi waaye nag yëf yi ku mu rek la la war mooy nga rafetal ko la la ca war muy dox ak wax ak jëf ba keroog muy génn say loxo loolu rek mooy li nu ci war kon nag lii moom lépp rafet kon yàlla na ko suñu borom nangu yàlla ko yàlla ful yàlla ko yàlla barkeel am nañ mbégte lool am nañ kontaan lool suñu xol daal sedd na xam naa dañuy tënk foofu kan ndax comme que ñu door agsi te xam naa mel na ni ndékkeegu ma te xam naa ni ab añ maa ngi koy séntu ah, te kër ci la ci la laa ñëw xam naa man moom mënaguma wax bal maa wax daal damay xaar ba yu bëree bëri jàll rek bu ma duggee ci tànt bi nag danaa xam ba xam ban côté laay war a dugge wax incha allah. ñuy nuyu sunu kilifa gu màgg gi eh, di suñu nijaay sëriñ Sayar Silla ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara ci turu soxna Faati Silla mi nga xam ne mooy sunu yaay. tey doomi maam Omar Fati Xari Silla eh, mi ngi lay jottali ab siyaara di la nuyu bu baax a baax tey xamle ne maanaam ak mag moo ko jàpp waaye kon eh, day ñëw teewe si bis bi eh, Sëriñ Taala Silla bërki démb rek ñu ngi jokkoo téléphone mu dima wax gàllankoor bu mu am ci mën a ñëw waaye mu doon ma wax naa ma day bu fekkoonte ne bu dul woon sama gàllankoor damay ñëw foofu rek jël sama maam soxna Faat si la ànd ak moom ñëw fii ñu bokk teewe bis bi eh, kon ñu lay jottali ay siyaaram bu baax a baax a baax di la ñaana lit nag suñu borom tëbb la kàttan ci biir ak ci bitti ba bis bi nga xam ne yaa ngi koy taxawal te yàgg koo taxawal ba léegi itam nga di ko taxawal eh, yàlla defal la ci ndam yàlla defal la ci lépp loo ci yéene ci ñaanal mag ña yàlla na sunu boroom jël tuyaaba ja lépp lépp luñ fi jàng ci alquran yàlla na sama boroom nangu ko te ful ko te jottile ko mag ña la dala ca maam cumbale ak maam abdourahman leen meññi sëtaat yëpp ñu mboolem ñi seen doom ak seeni i sët ñëpp yàlla na yàlla def euh, leerug alquran yooyu àgg ci ñoom doon ak njëggal ak yërmande yàlla aku texe goo xam ne euh, texe gu dappetoo lay doon tabbi ci biir jànnatul firdaws si sunu borom gën a yokk seeni leer euh, ñi nga xam ne sunu mag ñi nga xam ne ñoo fi des itam sunu borom kàttanal leen wéral leen rawatina ki sunu kilifa gu màgg gi di cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo fi togal Mawlana ak cheikh Ahmadou Bamba ñoo ngi koy ñaanal suñu boroom tëbb ko kattan ci barkeb alquran ji nga xam ne moom lañ fi doon jàng sunu boroom gën koo wéral gën ko tëbb kattan ba liggéey yi muy liggéey ci biir lislaam di ko liggéeyal maamam sunu borom defal ko ci la na mu ko bëggee rek mu defal ko ci lu kawe njortam. ànd ak yàgg gën fee yàgg lool nag gën a wettiliwaat murid yi ba ca kanam a kanam a kanam a kanam ndax kat moom sagub murid yëpp la sagub lislaam bépp la damay faral di wax ni Cheikh Mouhamadul Muntaqa amirul muminina la taxawee ci biir jullit ñi amirul muminina du ab xalifa rek waaye amirul muminina la julli fu jullit nekk rek maanaam sa njiit la loo xam ne bi ne mega ca sa kanam di dox di wéy kon royukaay la boo xam ne ñëpp nan ko ñaanal suñu borom gën a ko tëbb kàttan di ñaanal sunu mag yi yi nga xam ne ñoo nekk ci ci la daramaan ak képp ku soqi ko ci ci la daramaan ak foo mën a nekk sunu boroom kàttanal la wéral la defal la li nga bëgg lépp eh, guddal sa fan wéral la defal la pajug aaju ci biir ak ci biti eh, di ci jiital nag sunu kilifa gii di sunu nijaay muy Serigne Sayar Silla nga xam ne ñu ngi koy ñaanal daal sunu borom fi mu bëgg a yeggale bis bi ak fi mu bëgg ci la daraam yegg ci la daramaan àgg fa yàlla na fa àgg di jaajëfal itam sama mbokk yi nga xam ne euh, euh, waa kër sëriñ euh, Moustapha Sylla mi nga xam ne baayam muy nijaay Mor Antasar silla mi jur sëriñ Moustapha Sylla mooy taaw mooy taaw maam Omar Fati yi sama yaay mooy caat sama yaay moom nee na ma moom xàmmiwut baayam ndax moom waxtu bi muy bi baayam di dem boobu mi ngi nàmp euh, te mel na ni euh, am na fi ay fan ndax sama yaay yaakaar naa ne euh, li ko tere am juróom-ñeent fukk bu ko amatit itam yaakaar naa ne am na lu ko mat ndax li ma koy tegtaloo mooy moom wax na ma ne gis na Cheikh Massamba gis na Serigne Dame Abdourahmane Lo te ñooñu ñu fi jógeek léegi mat na juróom-ñett fukki at yu tegal te booba laaj naa ko yow booba loo war a toll mu ne booba am naa fukki at kon loolu kon day tegtale na moom ci juróom am na juróom-ñeent fukki at waaw tële moo tere mu ñëw ci bis bi kon ñi ngi leen di e, sargal yéen ñëpp e, sëriñ Mbacke Sylla ak e, soxna Coro soxna Astu bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp njaboot gi yëpp maa ngi leen di maa ngi ànd ak ñoom bis bi di ci bëgg di ñaan yàlla sama borom defal ni ci lu gën a lu gën a kawe njort ci ak defaru ak ku yëkkatiku ci biir ak biti te jële ci ngërëmal yàlla te jële ci ngërëmal yàlla yàlla nay ak dolliku ko ba faw goo xam ne day dolliku ba faw ci barkib Serigne Touba Maolana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ñoo gi jégalu nag ci kàddu yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. taala wa barakaatu. yéen sama mbokki bopp nu bokk lépp lu ndul mën a ba faw te muy loo ñëpp bëggan te ñu bari mënuñu ko am li may balaa may sant damay fàttali ñaari kàddu benn bi sëriñ Sidi Matar moo ma ko wax moo ni ku fonk ci la yaayay ndax lu sëriñ tubaa def tubaa da ko def ci la loolu di genn kàddu yi ci des sëñ Saaliw moom ma ko waxal boppam nettali nga ko léegi mu ne ma sàllaaw néeg boobee day moo tax jógee Mewdu dafa fekk sa maam sayer dafa sàkk tam ay xam-xam ba ñu xamee ne dama daan jaar ngembe te xumba yi ak yooyu daan xaw mu wóor ko ni lii day nemetti na ma dafa dajale mbooloo ma ñu defal ma xalu bu ni xoy col ba ba Mewdu ni ma li ma ci reeloo nag daal di jël ko ni ma ma saa ji romb ak new nag new gi day tuur lool nee na ma sàkk ci def sama yére ba mu ñëw jox donga yi su ma delloo de mel ni new gi mi ngi doog ko tàbbi daa di ma salaa dem ba booba de dem jóge jóge jóge miir dem ci la laal ca dóom ba rek jaraloon na ma ñaari kàddu yii nag moo tax tey jii nuy fàttali nii am na lu xam ni kun ko sàggane ku am lu mel nii nag boo ko sàgganee ku la koy ku la koy cant ki jees nag mooy leen mooy maam sayer maanaam day mooy digg ci la boo ne maam sayer rek da ngay wax tudd ñëpp njabootu sëñ leen Mor ak ñeneen ñu ne maam sayer ci mooy nekk ci digg bu looloo tax nu defe ko noonu ah wax ji nag balaa may gën a ya ñu dem ba ca barab ba waaye nag sëñ Omar bi nga xañ nag moom mook maam sayer dañoo bokk ndey ak baay wax dëgg yàlla ah, yëf yi li nga ko waxee léegi kenn du ni wër woon am waaye li ci wér te wër nag mooy da cee am leneen loo xam ne lii bokk yi teewaay bii ngeen ko teewee te xam ni lii kat moom moom dong lañ sàkku nu ñëpp nu teew bokk yëpp teew nu xam ne lii nu am noo ko mënu ko séddoo ndax ginnaaw Serigne Touba bi muy dem ci géej gi téere Serigne Touba moo yaatu lu yóbbu woon bu dil séddee ko ni sa juróom-ñaari doom yi nañ ma bu ci kenn rax. ñoo ñëw ñëpp tey jëlee seen sëñ Umar ak sëñ Sayer ak ñeneen ak ñeneen ñëpp yow jow ci bind loolu lam lu ca déeleen nun bu yàlla defee nun ñii tey leen sant nun ñëpp ni war a ku fekkee bés bi lan war a sante mooy dëkkuñu ci xeet wi te duñ ci mujj waaye nag bii tolloo ci yeesal ak wone daa nun la kon nag ñëpp nañ sant loolu rek doon na cant loolu rek doo na cant ndax lii nuy yeesal lii di koy beesal day loo xam ne lii lu am solo la ku kon nag bu fekkee ne nun noo noo noo tombee ak loola tombe yoo xam ne mooy waral agaaf waaye nan ko sante suñu borom ndax yàlla nu ko jagleel xeet yaatu na yàlla moo nu jagleel tey nu toll fii di ko daal di ko naal ni xam nag ni di geneen cant gi ni cant mooy lii nu tàbbali xale yi ndaw yi daa mel ñoo ko gën a bëgg kon ñor na leen kon nag ñun wàcc nanu ñun mag ñëpp fi ne nii wàcc nanu kon nanu ñaan mu yomb leen nag ndax mbir bu la ñoree da nga ñaan mu yomb la ndax bu la ñoree tu yombulee da nga koy dalay sonal bu la yombee tu ñorul nga sofantal ko waaye bu la yombee ñor la nga def ko te loolu ngeen wane amatuñ ci benn coono lu may ci bëgg buñ gisee nit ñi di ñaan nekk saa su ne waxtu wu ne kenn ku ne ànd ak wér ak kattan ak xéwal ban mën a teew bis bi di sant nag ki nga xam ni mooy sëñ Mbàkke mooy jëwriñ ji mooy mooy mooy mooy mooy lépp nan ko sant te ñaanal ko nu yàgg ko fee fekk ndax loo lu ci bëree bëri kat bu ñu see fii tey mooma kon ñun ñëpp nañ bokk di ko ñaanal ndaw la dégg na ndigal te mi ngi joxe mi ngi joxe dina def loo xam ne duñ ko yëg te lépp lu ji bis bi la kon nag nan ko ñaan moom it mu gudd fan ba yàgg yàgg jiite lii ñu yàgg ànd ak moom bàyyi taax nag ni mu ko waxee rek noo ngi ko yóbbante ci sëñ Moussa ndax moo fi sëñ Moussa tey muy xalifa ci la dara maan moom itam ni nu ko wax noonu rek la demee donc na koy yëndi ab suñu siyaar ak suñu cant ndax lii moo ci ànd may jox na ci ndigal ni kon du ko du ko ñemee def donc loolu rek la ñuy wax ba dem ba dem yeneen sëñ Talla nag ba demee ndax jox ko noonu waaye sëñ Talla moom baay rek ma daan wooye bàyyi bàyyi ndax yàgg nañu lool sama xarit la woon lool day sama xarit boo xam ne bii wax dëgg yàlla euh, euh, yëg na dayoo waaye ñii mu yebal tey jii day ak yéen ñi ñëpp day donte la xam ngeen ni noo ko bokk kenn politique kenn ndax fi ñu tibbee benn la fenn rek lañ tibbee muy foofa kenn ku ne da nga caa root te du te du jeex kenn kon joxante ay cër waggarante ko fi nekk waaye kenn ku ci nekk la nga ci am wallaay doy na la waaye nag nii ko defee di fa daje ngir ñeneen ak ak ak ak yaatal ko loolu rek a tax ñoo ngi leen di sant keef ku fi teew ku ne na lay sant na nga xam ni njaboot euh, njabootu sëñ maam baay euh, kii euh, sëñ Umar nañ xam ni ne tey jii day dimbal nañ bis bi taaral nañ ko waaye wane ni ñoo ko moom it nag jërëjëf jëf ba ne àgg ca barab ba nu mën a wax la ci des lépp macha allah bi aziz une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer